Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi baaxoo di seetaan daaro ak li may fësal ba ni fàng nee naa leen lu ne fàng kenn du ko jeex xale baa nii moo koy fësal ba mu fës waaye nag tey xale daa sees si xale bu ndaw macha allah boo xam ni dafa am jom loolu nee la ba pare lépp li nga xam ne nii moom la téye rek fi mu jamono ji ñu toll ñëpp ko ciy bàyyi xel ak xalaat nee naa la koy toppandoo sax te waaye nag roy du nuroo piir moo yore baax yi jigéen ñi soxla waaye moo yor bagage yu baax yi góor ñi soxla waaye nee naa la yemu ca am na ci yoo xam ne sax daf koy faj bu nu leeralee waxtaan bi tuuti di ngeen xam yan garab la yor yoo xam ne day am lu muy faj am yu muy defar ba mu baax am yu muy yu muy yu muy moolal ba mu mool mu ngi noonu ci yëpp dinañ ko détaillé ba mu leer leen di yéen a bëgg ma leen di wan ñi nga xam ne nii danoo nekk ci dëkk bi ba pare waaye nag di jàpp ci li nga xam ni moom la réew mi di doxee kooku faaw ñu seet si ko nu mu tudd seex la tudd maa ngi fii ci HLM bàyyi leen ma bàyyi ko mu nuyoo ayca nuyu naa la waaw Daro maa ngi lay fay di la nuyu di la jox sa wàcc waaye di nuyu waa Leuz Média yëpp équipe bi di nuyu Alioune di nuyu sama gaay yëpp di nuyu samay clients ak samay clientes yi nekk Sénégal Gambie Mauritanie Espagne Italie France Angleterre Canada Allemagne Sweden xam nga fàttuwuñ fenn daal macha allah ñu ngi fépp. ba Amérique xam nga maa ngi nuyu ñëpp góor jigéen ak foo manti nekk moo xam Afrique moo xam foo manti nekk macha allah ñu ngi nuyu ñëpp daal. ayca ñu ngi lay fay dégg ngeen ni mu nuyoo monde entier la nuyu nee leen xale international la parce que ay bagages am dafiy jóge di voyager moom ci boppam sax dafay jóge di dem ci yenn dëkk yi di yóbbu ay bagages am nit ñi di ko jël di ci gis seen bopp ndax nee naa leen lu baaxay jaay boppam li mu yor bu ko neexee mu wane gis ngeen ko ci yenn plateau yi mag yi fii ci Sénégal mu toog fësal li muy def parce que macha allah képp ku yor lu baax dañu koy fësal ndax nëbatuwul maa ngi nii moom li na faa nga kenn du ko jeex kuy làqatu du ko wax mu ngi noonu Aïcha gannaaw ba ma la nuyoo ñu jublu ci bagage yi fan nga toll ci ci ci liggéey bi ak fi réew mi toll nii ndax affaire yaa ngi dox nu mu demee ana clients yi ñu ngi gën a ñëw nan la fan la fan la affaire yi toll ndax xam naa ni say bagage moom nekkatul lu ñuy présenté mais faaw nga fàttali rek waaw. waaw fi ñu toll ci affaire yi comme ni ci tolloo woon rek. ba tey xanaa lu ñu gën a def mooy yokk cere dooli ñeex. Mhm. waaw Euh, produit yi moom xëy na kenn naataable ko si baax wala yooyu wante xëy naa gën nañ ci yokk loo xamante ne nii pour maanaam affaire bi gën a taaru moo xam ay emballage yoo xamante ne nii si liggéey bi la boo xamante ni dañoo dem ba Dubaay mhm. commande ko toog fa waa ji nii laa ko bëggee nii laa bëgg nga bind ko couleur mel ni lay am nii ak nii nii ak nii xamante ni man lay neex quoi nekkul damay jël xam rek dem foo xamante ni lii laa bëgg rek quoi damay toog man lépp lu may defar si kii sama liggéey damay toog mhm. ne la nii laa ko bëggee nii ak nii nii ak nii ba tax na sant yàlla ñu jóge Sénégal demoon réewu naari jaaye fay produit xam nga ak tourné fay émission xam nga liggéey fa tamit affaire loo xamante ni tamit si ah, ah, wàllu liggéey bi la jëm te boobu xam naa yooyu léegi mu ñëw incha allah si tabaski bi moo taxoon rek ak temps beeg yooyu moo taxoon ñu kii ñi mais macha allah daal ñu indi yeneen affaire yoo xamante ne nii si affaire emballage macha allah boo ko gisee rek da ngay bëgg xam lépp rek ngir mm-hmm. respecté suñu liggéey ngir jox ko gëdd ak àq xam ne ñu yëruñu Euh, loo xamante ne nii ay faux la wala ay tappale la mm. xam-xam bu wérte wóor lañ yor macha allah moo tax ñu génnee ci xaalis bu bari macha allah dem defaree ay mm. xam nga jóge ci réew dem ci réew sant yàlla daal lépp lépp ndimbalu yàlla suñu borom la ak ñaanu client yi ñu ñuy faj ñuy euh, ñuy kontaan di ñu ñaan wala ñu leen di jaay ay produits ñuy développé seen i farm ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. daal léegi ci sa biir wax nga ne ñu ñuy faj da ngay fajaale en même temps. waaw mm-hmm. moo xam ay hémorroïdes ndoxu siti bëñ buy metti wala biir bi metti xam nga waaw wala yenn feebar yi dal la xam nga wala nit ki su ma woowee ne ma lii moom a dawal naa su ma si xamee dara ma ne la xaw ma ci dara su ma xamul ma ne la xaw ma ci dara. produit yi fan lay jógee produit ko boppam nan lay demee. comme ni ma faral di wax rek produit ba may nekk Touba laa ko daan jaay di ko ambulant ba yàlla def ubbil ma ci xëy na xeewal laa mën a wala lu mën a nekk ma xam ne lii kat mën naa ko valoriser ma gën koo valoriser déplacé wu ñëw dakaar installé wu fi. xam ne liggéey bi boobu tamit liggéey dafa ma ëpp doole ma daan kii te Touba ak Dakar day xaw a soriante pour envoyer produit wala mu war a jóge Touba ñëw Dakar doo ko dem Europe wala Amérique wala feneen ak feneen loolu lépp temps la ma ne pourquoi pas ma ñëw comme que yor naa xam-xam ma gëm ne lii li ma yor xam-xam la ma xam naa fi ma mën a yóbbu moo tax ma déplacé ñëw installé boobu man kese ma fi nekkoon te sant yàlla yàlla dimbali ma bi a kii te ñuy ni ma ko faral di waxee ñoo indil convocation mosu ñoo yóbbu police mosu ñoo lekk tamit xaalisu jàmbur te fu ma neex mën naa fa taxaw wax ko te aw ma sens interdit fenn fenn fenn fenn fenn loolu lépp ndimbalu yàlla suñu boroom la ak euh, xam-xam bu wóor daal. Mm-hmm. Mm-hmm. ak xam-xam bu wóor est-ce na ci benn côté parce que des fois ñu ne produit yi ñu lay jox mu yokk say fes ak yi yokk ay ween ngeen baal ma wax bi faaw man jaar ko ci digg ba waaw kay pour gars yi comprendre donc ak yi nga xam ne dalay yokkal ci góor ñi ñu yokk seen i awra xaw ma noonu lañ koy waxee defe naa yooyu est-ce que est-ce que euh, amul lu ci lu ci am effet secondaire parce que am na ñoo xam ni ñi lay toppandoo bari na léegi dëkk bi xaaj àdduna bi yëpp la ñuy jaay te dégg naa am na ñoo xam da nga koy utiliser say fees uh, am neewi wala mu indi la yeneen feebar ndax yow uh, ci côté boobu gëstu nga ci bu baax ba nga xam ne boo ko utiliser doo ci am dara lu la ci naqari. non man sama produit bi ma nekkee Touba laa ko doon jaay di ko ambulant ay jamono. Mm-hmm. kon boobu man xëy na am naa ci lu ma leer naa macha allah. Mm-hmm. Uh, nit ñi da nga ko utiliser boobu teg fii xam nga di ko jaay. xam nga ak yee bagage yi jigéen macha allah. xam nga ba yàlla dimbali ma ñëw Dakar gën a valoriser affaire bi macha allah xam nga te aussi tamit kon ni ma ko waxee rek mosuñu see tappale xam naa li ma yor ñi ma koy jaay ñi koy utiliser xam nañ bu baax produit yi mooy lan mhm. te ñi ko dal utiliser ba léegi ñenn ñi sama mbokk ñenn ñi dañ koy utiliser parce que dama leen koy may sama mbokk laa wax de sama am di jàmm yi ñenn ñi parce que ku mhm. nekk am ngay mbokk am nga am di jàmm des fois ñu bëgg yow li ngay jaay yooyu mhm. comprendre comme ni ko ñeneen ñi di bëggee am naa si ay jege jegeñaale dama lay may bu fe te loolu yàgg na te boobu ba tey dara jotu leen macha allah ñi ñi ngi sant yàlla ci loolu ñi ngi si gis résultat et cetera boo ko utiliser ba commencé gis sa bopp da ngay arrêté wala da ngay continuer di di di di ko utiliser tout le temps da boo bàyyee dangay ngay da ngay tuuti waat ni nga meloon wala soo bàyyee su xësee ba jàpp jàpp na sama produit man bi may jaay man Cheikh borom produit yu baax yi. Mm. boo ko utiliser une semaine ngay commencé gis ay résultats. moo xam luy yokk awra góor moo xam luy développer fesse anse wala weenu jigéen. Mm. wala yeneen ak yeneen ak yeneen samay produit yëpp une semaine ngay commencé gis ay résultats loo gën a continuer produit bi ngay gën a gis ay résultats te produit yëpp sakkan na. parce que témoignage yi mi ngi sama Instagram boo defee. Cheikh Cheikh Cheikh produit l'officiel mm-hmm. témoignage yi xaajul jeexul soo leen duggee sama Instagram Cheikh produit l'officiel mm-hmm. témoignage yi nga ñu ngi fa. ñu si bëree bari nga kooku noonu ñetti yoon laa ko jaay produit wallaay la nga si mu gis résultat premier peuple lañ tax a gis résultat mais dafa neex mu yokk cere doolu ñeex waaw mu ngi noonu lu baax daal mooy jaay mooy ni ma leen waxee rek parce que boo jëndee mu baax da ngay ñëwaat mais fii kenn mënu leen nax boo tollee bu nu bu nu tollee ci milieu bii nii nag di gis ni que ñëpp ñu ngi daw ci côté bii bu dee sëriñ si da dafa liggéey bi dafa nef bu dee ñun comédiens yi suñu métier bi dafa nef métier yëpp a nef mais rawatina nag ci côté jaay fes jaay nangam yow en tant que jeune di jaay lii mu wóor la nga def baax na nga gis ñeneen la copier te ni ñu koy defee baaxul noo koy gisee ma koy gisee damay gis ne xëy na Sénégal ñàkk liggéey moo fi nekk mm-hmm. te aussi tamit dañ na ah day jaay lii xëy na peut-être am teranga mm-hmm. ñu ne ñoo te pourquoi pas parce que bëgg yomb gi yow xamuloo dara xamuloo lu ñuy defar li ngay damay gis kii damay defar karité nii rek jaxase rek jox ne damay defar luy may nangam te yow leer nañ la wallahi boo tëddee xam ne yow lii nga def ni yàlla mi la tiim xam nga ni lii nga def nii dara baaxu si mhm. mais nga toog si télé wala nga toog fa mën a toog di wax ni li may jaay nangam ak nangam te na ne li nga jaay baaxut ngir bëgg xaalis moo la ci dugal am na ñoo xamante ni fii yoroon naa leen fii ni ñu may liggéey sama assistant daan ma tontul ay message daan ma wuyu téléphone tey ñu tàggatoo ñu dem si youtube beeg yo di fa di def ay produit te xamuñ ko fenn loolu moo lay wan ni wallahi la azim billaahi billaahi du caaxaan xam nga mi ngi noonu si nekk ba ak wala ñu xamante ni ñenn yi ak ñoom sax mm-hmm. xëy na ñu gis ma xam nga yàlla dimbali ma si benn côté sant yàlla mm-hmm. xam nga rek du classe kenn juste question yaa laaj moo tax may développé waale pour mu leer quoi moo tax xam nga rek mi ngi sant yàlla daal di leen ñaanal tamit yàlla na leen yàlla defal li gën ci ñoom ba kuñ jaay dara wala lii ñoom ñu kontaan ci loolu mm. wax dëgg yàlla mais en tout cas daal loolu moom bari fi gis nit di def lii rek wala muy def lale moo xam sama métier moo xam métier beneen parce que bari fi gars yi moom boo xam nga waaw mi ngi noonu daal mais ñun moom lu dëgg la ñu yor mhm. xam-xam bu wóor la yor bu ñu wóoru toon duñ jël fii ay nit lu mat six personnes yóbbu leen Dubaay def fa émission tourné fa ak ñoom def lépp pour liggéey bi moo ko waral waraloon ah. xam nga waaw maa leen yóbbu man mhm. ragalu ma loolu waa Tektal TV la mhm. sama gars yi maa leen nuyu bu baax a baax a baax ñoom Cheikh Taalif équipe bi yëpp fàttewu ma kenn maa leen nuyu bu baax a baax a baax a baax sama gars yu baax lañ macha allah ñoom laa àndaloon ñu dem tourné fa émission macha allah daal wax dëgg yàlla te rafet na euh, booba léegi dara ñaaw ci loolu loolu liggéey moo ñu yóbbu woon lépp affaire produit bi rek parce que man sama liggéey laa gëm jaral na ma lu nekk waaw jaral na ma lu nekk moo tax xëy na ñu def loolu macha allah te ñi sant yàlla bu baax daal yal yàlla may gudd fan ak wér rek waaw loolu daal la ñu ñaan mais ba tey mu ngi noonu yéen a ngi ci seen émission li may fësal ñu dalal seex mi nga xam ne xale la macha allah ba pare nee naa leen am jom ci li muy def jël ay produit di ko def nee na Touba la nekkoon di def ambila mën nan anyeeraat tuuti ci début bi nan la la nan la la eh, idée bi dikkale nan nga jékki-jékki rek xalaat ni ka li nga war a ambila di ko jaay defar ko eh, xalaat ko idée bi wala xam bi boobu fan la jógee waaw loolu bi ma nekk Touba la man gonek Touba la gonek daara la Euh, jàng naa alxuraan jàng naa arabe jàng naa français. Mm-hmm. sant yàlla lu mu bon bon am na lu ñu xam si loo xamante ni peut-être wàllu xam nga rek bëgguma <laughs> tudd yéen affaire yi quoi ilmu nujum laak yooyu noonu ay adat ak nit sax tur nit ni nga adat turam lii nga xam kii nii borom wësëg la wala borom rab la wala yooyu. xam nga loolu sant yàlla man naa ko mais. bëgguma di ko def. Mm-hmm. yenn clients yi des fois ñoo ma si sonal nii rek am na benn sans avant ngeen ñëw rek sama assistant bi benn femme dafa am bac. mu ne sama doom ji de am na bak affaire yooyu quoi am na doomam bu ndaw la xam ma magam moo ko juróom yooyu quoi ma ne ko nu mu tudd ma dama sob mu ne ma nii la tudd ma adapteur bi mu jox ma benn chiffre mu ne kii ay rab kese la barki Seydina Mohamed mu ne ma juumuloo de parce que day toog parfois di mer kenn ko def dara mu këcc waa kër gi yëpp te xaw ma ko tur bi rek laa xam xam nga pour wane la xam nañ ci côté boobu daal man sama produit naturel la base bi karité la moo xam bi maye fes ak ans ak yokk awra bi te boo ko utiliser une semaine ngay commencé gis ay résultats loo gën a continuer produit bi di ko gën a utiliser ngay gën a gis ay résultats mën nga gis résultat bu la neexee nga continuer di diw a jox mais kanta leneen li ngay diw kanta dafa ëpp ah. non non man nee naa la man sama liggéey bi ma si nekkee ba tey. kenn musuma see àkk si. Mhm. musuma see am problème musuma see yóbbu police wala ñu may convoqué. lépp te musuma tuxu tamit. Mhm. sant yàlla la. benn la. ba ma jógee Tuubaa ñëw fi ba tey benn la ah, fii laa ma sa dëkk. Mhm. waaw pour mu leer quoi. produit bi nekkul da nga koy diw mu toll ne awra fas wala awra mbaam pour mu leer. xam nga dafa am loo xamante ni dafa raisonnable am raisonnable. Mm-hmm. man sama produit boo ko ay ah, des fois sama yenn gars yi dama tooy naaw jox ma produit yokk bi ma yokk baa du baa du gën sama tubay ji di kii noonu <laughs> kaa ñoo quoi xam nga sama yenn gars yi quoi mm-hmm. mais demeewul noonu quoi dafa def am na awra dafa am fu muy yem mm-hmm. awra mbaam ak bu fas am fu muy yem awra googu mënut a am fu mu yem ba passé ay oomam wala yooyu mënut a nekk sax comprendre nga waaw man yoru bant yoru kii mais boo ko utiliser maam bu fekkoon dafa toll nii exemple boo ko utiliser dina toll li nga xamante awra bu baax fi lay toll mm. mën na dem ba 24 centimètres ba pare dina ko da koy réyal da koy guddal da koy dëgëral sans effet secondaire produit bi 100000 francs lay jar yokk awra bi moo xam nga nekk Amérique moo xam nga nekk Fuuta moo xam nga nekk Thiès moo xam Fatick moo xam nga nekk Canada pour loolu tamit mu leer dañoo teg ñoom ñi nekk Europe wala yooyu mooy gën a cher ñu nekk fii man sama produit amul ku nekk Fouta amul ku nekk Fatick amul ku nekk Amérique yëpp même prix la Gambie ak Mauritanie fes yeeg man sama produit yëpp li muy jar Sénégal moom la jar Amérique moom la jar bitim réew mhm. macha allah ci côté leel dégg naa jigéen ñi nga xam dañu teg périg ba périg yi mhm. yóbbu seen leel mhm. leelal seen bopp bi indiwaat karaw bi ba fii ah. boobu am na karaw euh, am nañ produit karaw bi produit naturel aussi base bi karité la moom mooy dindi leel di maye karaw bu fekkee nag leel bi judduwaale woo ko moom waaw boo ko fekkee da nga ko judduwaale moom du ko dindi bu fekkee judduwaale woo ko day dindi say leel macha allah boobu tey mu wàññaa si mi ngi sama Instagram Cheikh mm. produit l'officiel benn femme bu nekkoon Touba ma jaayin ko produit pour karaw bi ak leel bi xam nga mu ne euh, seen waa kër nag xanaa dañoo jinne dafa toppati sa karaw may la affaire yooyu quoi jinne coppati karaw moom la ndax maam xam nañ ko ni mu meloon avant ak après macha allah moom mu vocal ma li mu expliqué lu mel noonu mm, macha allah euh, tudd hémorroïde mhm. que dafa dafa man a découragé man samay produit yi dégg na man am na ñoo xamante ni boo demee si ñoom dañ naa da ngay ñëwaat bu garab yi jeexee wala une semaine nga ñëwaat di ñëw di jaabal nga fa jaabal trente fois man bul bu la neexee bul ñëw dañ la jaay garab nga toog fi nga toog di ko utiliser une semaine nga commencé gis ay résultats. na war a am arrangement parce que cent mille xaw na sax ci non non loolu produit beeg kese la boobu kese moo jar produit yu bële kese la. Ah, mais fees bee kii bi. produit yu bële kese la. Mhm. moom mooy jar cent mille francs. loolu man jaay naa ko mu ne ma lii un million sax jar na ko. mun la jaral na am na keneen ku ma ko doon jaay tamit fii Dakar mu koy jaayaat ma damaa bëgg. beneen euh, euh, bu góor bi dafa dem muudu am na beneen boo xamante ne nii am na ah, livreur bi dafa day ñëw di dem des dañuy woote di commandé moom mu ñëw dem fekk commandé am na boo xamante ne daf maa woo ne ma aw ma cent mille yàgg naa seetaan nangam ak nangam billaahi bak si bu fekkee fen la yàlla ma àggale émission bi billaahi wa man dama ci sax di ko may dama daan def ay Instagram bu fekkee ñu ma yàgg si sama Instagram def live Instagram nii di maye ay produits hmm. lu mat vingt personnes wala lu mat dix personnes wala ay quinze différents produits moo xam góor moo xam jigéen ku nekk li nga intéressé wu nga ne ma seex lii laa bëgg ma jël sama fooy bind numéro bi fi nga dëkk bu subaa livré bi ñu naa leen kii ñëw nii tey xam nga ni kenn dootu ko présenté te réew mee ko bëgg réew mee ko jox bopp muy Serigne Aline Mbaye bu ma neexee ni ko Serigne waaw kon xam nga Serigne bu ñëwee di ci Serigne bi <laughs> war naa mën a nekk guy min na mbalka ay ci nuyu naa la bii Serigne nag mhm. tey daa mujj doon lantinooru Cheikh Produit a ah, waaw maay lantinooram déedéet kay doo téye diw mooy yow fu ma koy téye <laughs> damaa am lu ma téye diw lenn daal dinaa la ko wax yaa daay yow xam nga ni macha allah doo dem fenn fu ñuy lam-lam dafa leer tax sa ndaanaan ñëpp a ko wane waaw ndeysaan yaaga waaw lii nag day loo xamante ni fekke cër la waaw xam nga ma ama jotu di wax lenn loo xamante ni man ama jotu non ne ci ay mbili mbili cheikh ba mu ñëwee la kër yi defar ah bon xanaa xamoon ni nit lu muy gën a dem di gën a jëm mag awram day dellu boo déggee ñu naan yokku awra mhm. du question que awra ba ngay téye déedéet sa awra day dellu day dellu day dugg ah. nit lu muy gën a jamono léegi nag boo ñëwee nga koy frotter karité bi day génnaat ba tollu fa nga toll ah. loolu la waaye nag bu dee dof danaan non maa du ëpp wala nangam ah. déedéet ah. awra looy gën a dem day dellu parce que sidit la sidit bi mooy lemu looy gën a jëm mag di sëy bi day lemu léegi nag sidit boobu la ñuy xëccaat karité ku wax karité wax xam nga ni lu baax mm-hmm. gis nga maliyee ni nu wuuteeg ñun mm-hmm. ñoom ñoom kun ci jàpp ñun lu mu gàtt gàtt ñu néewal la doole karité ko waral mm-hmm. karité la kii nag kii bàjjo baa ngi ki ñi nga xamante ni danoo gaaw a sotti. gaaw a waay ñi gaaw a sotti. pirip dip. da ngaa mën tàppit la. ah pirip dip de ah, laa wax pirip dip kooku kii moo ci man dara. ah bon mm. waaw waaw te gis nga kii bu la neexee mëkk ko du la du la wàññi dara moom lépp a meññeefu réew mi la jël delloo ko waa réew mi. Mm. maa la ko wax. Mm-hmm. kii nag mm-hmm. kii moom ma ñi ma xam sax xam na ni sama yëfa ndoxum siti ndoxum siti man nga xam ne damaa ndoxum siti woon ba maara dee waaw gisatuma kay say ndoxum siti moom ma fa gisoo teen bi ma yor moom ah? ndoxum siti loo ko def nii da ko doon xoolee. da ngay naa une semaine nga gis résultat moom daal bés ba ba dellu si moom laa ay garabam di bañ. moom loolu lay bañ une semaine saa ko tuddee Cheikh produit bi une semaine. une semaine kii nag gis nga. Mhm. chauffeur si téyeur si ñëpp émori. émori moo sonal ñëpp ñi toog. moo sonal ñëpp gis mi ñu ko fi mën a faj bari wut de. ah bon danañu woote ba nga ñëw ñu émori un ngay am ñu yokkal la tri pour émori <laughs> garab gaa ngi nan ko xàmmee bu kenn laayam laayam yi di jéem a dem fenn aselem la fii ci école bi Cheikh Polo oh, école bi nu mu tuddati école Lyon. école Lyon waaw. asalaamaaleykum école Lyon sax Cheikh ay mooy ay gaynde. waaw gaynde la de eh, yow sa yaram tàng na de moom sa tàng yaram. li moom ban la. wàññi biir. man rek doy naa ci bi sax. ma xool eh yow gisatuma sa biir de. wuy ñëw ci femme yi la tegu. waaye wax ñu sa fekk rek Cheikh ah kenn du yow. man yéex naa ñëw Cheikh mm. Cheikh. ah fi mu ne nii bidon ngay jël Evian. Mm-hmm. def ñetti kudd def ci sa ndox. Mm-hmm. ub di naan fa doo naan beneen ndox nag bu dul moom. moom sa ngay naan. biir ba day mel ni lu lu ay saan yu def. dellu day dem te da koy rax saale dégg naa ba mu set. Mhm. lépp lépp luy salte. Mhm. sidit day day jékki-jékki fat mhm. wala nga am yaram. sidit yi gereef gi fatt say sidit. fatt say léegi nag lii da koy nettoyé. nettoyé gisoo corona bi ñi am yaram da gën a bañ. ndax day fatt doo mën a nooy boo amee yaram. sidit gi bu baree day tànc xol bu lu ndaw la waaw moo tax ñëw ci seex jamonoy corona gi am solo ñàkk fee ñëw wóoru léegi ah saabu tuudi saabu tuudi eh. forote forote ngi da ngay xam ni nga jàpp bi ouverture am bi kii na de fros na dara newu ci ah, jàngale noonu la moom la wuti woon Touba waaw ah? waaw am la dina fen ko ñëw macha allah macha allah sans effet secondaire ah bon waaw moo tax gis nga nit ñi dafa bari ne ñuy tricher mm. waaye boo xamee fii day yomb ci yaw nga mën a am garab gu baax mhm. moo tax garab yi ci mbaaxam la koy maye waaye maslaawul mayewul ndax dafa baax booy def di gis xam nga li jafe mooy def gis def gis waaw yombul mm. bii foroote mm. mu ñëw nga am na nan lañ koy frotté. de ah, bu ma dugal. yaa frotté ah, bu ma dugal. yaa frotté ah waay bu ma dugal. <laughs> waaw baax na. kii nag moom. Mhm. xam nga xam nga ginaaw bu sew day delloo kër ginnaaw. maadu. moo wecc du sewayam. Ah? balay yoola du la jariñ dara. jigéen bi am ginnaaw gu sew boo ah. koy dugal sa kër lu fa ne dem ceex a ko fi jële jigéen day am salaamaaleykum wa maaleykum salaam gis nga gis nga gis te nag dama lay yax leen de mhm. daan nga dégg ñu wax taay koka taay koka waaw moom la def del siwaat na day defaraale sa forme waaw cheikh produit yi koka <laughs> del siwaat na <laughs> da la koy defal ba mu rafet mhm. nga xam du de macha allah da nga ciy am ni mu gënee. te baaxe te doo sonn. te doo sonn Cheikh daal moom yàlla mi ko indi rek la ñuy gërëm. kenn du Cheikh gone bu la xam setee mu mën a bokk ci ma. waaye ndokk ku jóge Touba loo indi day baax. amul leneen maa ngi dem damay yóbbu garab yi. dina wuy ma dañoo fi bàyyi fes ne bàyyi fes. lan Aliou dama lay ñëw daara say fes fes na loolu tëdd fes. lépp nga xam ne ñàkk fes day delloo kër gannaaw Aliou jox ma lii aw ma fes. waaw jërëjëf HLM 1 laa nekk école Lyon. waaw numéro téléphone yi mi ngi noonu bu fekkee Euh, Gambie nga nekk wala mm-hmm. Mauritanie wala Europe wala yooyu nga def plus 221 70 592 93 94 wala 78 475 06 06 wala 78 116 15 48. mu ngi noonu donc cant ak ngërëm na leen di gërëm sama càmmeñ bi fi toogoon léegi Aline Mbaye waaye Cheikh di la remercier ci accueil bi macha allah dañ ñëw mu teeruñu jox ñuy sedd ñu naan ñu toog fu sedd guyu te ku jënd si it nii ngay demee da ngay toog ñu jox la yu sedd nga naan nga toog fu sedd mu conseillé la boo demee gis ko une semaine nga gis ci njariñ Aline Mbaye Cheikh une semaine la ko tuddee mu ngi noonu ma tuddee ko Cheikh sept jours waa est-ce que du benn ba tey gërëm naa leen sant naa leen bége bote ayca xool leen numéro am yooyu ñu bind ci suufu écran bi ngeen woote ci ñëw jëflanteeg moom lu baax du ngeen ko réccu yal na fi mbas mi jóge ñu ngi ñaan ci barke Serigne Fallou yal na fi feebar bi jóge ci barke Seydina Mouhamed gars yi dellu ci seen i liggéey sama fans yëpp maa ngi leen di wax ni ko defee ñun ñëpp ñu xeexandoo feebar bi di di di takk zel yi comme ni ko kii waxee woon <laughs> bala gay sama xarit boobu nani nani diwoo zel yi di takk masque yi ñaan yàlla mu jële fi mbas mi seex maa ngi koy nuyu sama caméraman bi ma gunge kenn du moom ci man nee naa la fu ginnaaw maa ngi lay gërëm di gërëm mbokku Leuz TV yëpp di leen wax ni kat beneen yoon ci beneen émission li may fësal